donc nag date yëpp dafa historique dafa stratégique pour ëllëgu Sénégal minutes yi day compté quoi donc moom c' est le moment ou jamais de se débarrasser de Macky Sall ak groupe bi nga xamante ne tey ñu ngi ànd bëgg a lor sénégalais ngir seen bëgg-bëgg donc ñu àndandoo xeex ko kon donc date yëpp daal jàpp naa ni c' est normal mu stratégique. alors c'est finalement moment stratégique ginnaaw bu nga ko le 14 15 16 Et mu daal di koy le 29 euh, 30 euh, jàpp nga le 3 alors euh, bu que ko jàppee mu am ses parce que comme sur mu dina daal di reporté woo li nga xam ne procès am na aussi gain de cause parce que li nga comme que moo di yëf dit mu tout daal par rapport à des ak qui nga xam comme moo di alors nous sëpp di jàpp ni cherche à fuir le procès est ce que loolu de nekk li ngay dëggal. waaw cherche Sonko moo yey sax moo yey di fuir le projet. man bu ma doon moom damay du ma wuy ji sax ndax xam nañ li ñu nar liñ ko naral xam nañ liñ ko bëggal. liñ ko naral exactement. mooy yàq yàq yàq carrière politique am rek. loolu kese la séparation des pouvoirs. waaw non exécutif ak. Euh, euh, non loolu la séparation des pouvoirs ici au Sénégal yi existe que de nom ci tur rek la la la kii donc dama ne euh, Sonko bu ko bu ko neexee. Hmm. daal di daw procès bi. parce que hmm. procès boo xam ni que la porte plainte dafa ne woon. Euh, diffamation ñu dem procureur yokk ci yeneen charge donc loolu rek jar na taxaw taxaw seetlu ne lan moo ci yoonu procureur bu mu ci yokk ay charge euh, faux et usage de faux tey bu indi woon euh, xam nga kii bi moom kii bi moom am na Mame Mbaye Niang sax toog waxal na ko boppam rapport bi moom il existe déjà Amadou Ba wax na ko Mame Mbaye Niang ci boppam waxal na ko boppam Birahim Seck bind ci livre pendant trois ans. bind waaw non mooy ñoom dañuy fenn rek ah Macky la ngi nii waxoon ñu di def troisième mandat mu ngi nii nee na lu constitution bi may na ko ko Ismaïla Madior Fall lan la ñu waxoon nul nul nul ne peut exercer y' a pas place seen i euh, mu def troisième mandat bàyyi ma waxu waaye nga naa may eh, ndax ndax ñoom dañuy delluwaat seen kàddu ñoom loolu lañ leen xamee wax waxet wax lu dul dëgg mais au au contraire c'est Abdoulaye Wade il était un peu courageux taxawoon na ne maa waxoon waxeet mais ñom dañuy tourner wut Macky Sall day tourner autour du pont mais ñu koy xaar damay ñew ne la Sonko mo yey di fuir procès bi. parce que procès bo xamanteni tay c'est procès politique la diffamation lañ la waxone so indé document bi tay ñu ne la faux et usage de faux kon Sonko amul benne porte bu muy jaar pour guen parce que dañ ko dañ ko maam dañ ko bëgg sacrifier. donc il est piégé si non madame madame l'état ne pas devait pas être là pour piéger des populations. Hmm. madame justice est war a sauver maanaam dafa war a fekk fàllu xelam jaaxle ñu bëgg ko noot mu génnee ko ci loolu. wala sax moom mu nek, si koo xam position faible euh, euh, euh, justice conseiller ko xamal ko ay droit ba mu génn ci situation yi mu nek mais justice su Macky Sall day enfoncer xolal ba Sénégal des Sénégal ba tay sorti procureur yi def si nguru Macky magistrat yi sorti yi def di porter presse manam ñom nit yi ñoo warona jaxlé di xulo ci presse bi di xulo ci mbedd mi ñu mais ñom ñoo sur la voie publique di fa donc da ngay xamné mm. da ngay xamné ne dafa tourné nous toll ni ah. ñun ñoo waron jaxlé mm. nek di xulo di wéranté ñom ñu nek sen parce que mm. ñu ñëw ci ñoom ñu arrangé ñu tranché jël loi teg ci yoon mais ñoom ñooy génn ci mbedd mi di wax tal tal tal di joxe ay fausse information kon Ousmane Sonko dégg naa nga ne ma série de manifestation yu mu woote. sénégalais bu dee ils sont conscients waruñu xaar Ousmane Sonko di woote pour ñuy génn ci mbedd mi. mais contexte bi est-ce que aussi c'est adéquat. dama ne euh, euh, dama ne on parle. dama ne préparer suñu 4 avril aussi ak koor gi. dama ne est-ce que c'est adéquat par rapport ak xeex bi. 4 avril Fallou. 4 avril lan la fête d'indépendance. mais Macky Sall suñu indépendance boobu noonu wala soi-disant indépendance boobu. Macky Sall mu ngi ciy dëggate ay tànkam. léegi nit du nax boppam réew mu indépendant du bëgg a manifester population ba du ñu bëgg a manifester benn minorité ne leen du fi amee kon on n'est pas indépendant ñun ci dépendance lañ nekk dépendance. total léegi bu ñëk sax dañoo dépendre dépendance tuba bi lañ doon mais ñun ñun dañoo dép ñun suñu suñu suñu suñu avenir fim toll ni ak suñu suñu suñu suñu réew. ci loxay manam ci dépendre Macky Sall la dépendre. Mm. ci ay bëgg-bëgg Macky Sall parce que Antoine Diom wax nako néna mom en tant que ministre de l'intérieur ci ay bëgg-bëgg Macky Sall ci lay dox. kon ñun amatuñ bëgg-bëgg kon on n'est pas indépendant il faut que ñu bañ nak suñu bop réew mo xamanteni ni ministre de l'intérieur bi nga xamni la paix intérieure mom moko wara saytu. nena mom ci désiru exécutif mam désiru ki ko nommé muy le président de la république ci désiru koku ci lay dox doxul ci loi doxul ci éthique doxul ci doxul ci constitution doxul ci texte mom nena man ay instruction président Macky Sall ci lay dox mm-hmm. wa légui ñun ba fête indépendance ban sens lañu amal ñun on n'est pas indépendant parce que ñun bu fekkoon dañu indépendant tay tay ñun Macky Sall du téré ne dañuy manifester ñu ne du manifester. su nañu indépendant Macky Sall police ak gendarmerie duñ ak ay duñ ci kaw sénégalais du am du am du am du am coupable. barki dem bi bi dañ ana justice procureur est-ce que vous na donc dama la bëgg xamal la sénégalais comprendre ce qui se passe du ñu xaar Ousmane Sonko di woote ñuy génn xoolal tey les prix de denrées de première nécessité. xoolal tey weeru koor gi tey am na ñoo xamante ni tey problème mu ndogu dañ koy am. gënoon na métti nag réew mi métti woon na mais ni mu gën a ni mu méttee nii maanaam lu doon jar tey euh, mille vingt lu doon jar deux mille léegi quatre mille lay jar. fàllu fàllu suukar bekk maanaam nguur lu mu tële tële tële weeru koor da daan fexe affaire yi xaw a oyof ci askan bi parce que weeru yërmande la yàlla mi sàkk àdduna yëpp sax weeru koor day yërëm jaam ñi. nekku def benn ma fay la fukk maanaam di def weer bu njëkk bi yërmande la bi ba jéggale la yàlla sunu borom sax mi nga xam ne moom mooy détenir pouvoir yëpp day jéggale ci biir weeru koor ñun nguuru Macky Sall la ñu ma la ñu si weeru koor lañu ñu Macky Sall di mu buggal mooy xoolal prix des premiers des denrées responsable nga yaa ngi jënd yaa ngi yaa ngi dem ci jënd ceeb yaa ngi léegi da nga yor sa xaalis bëgg jënd euh, suukar sax munoo am suukar madame pour man une préoccupation énergie bii ñuy def ci kaw Ousmane Sonko ay rebelles yeeg yow ku mënta fexe sa askan am suukar bu ñu bu lekk ku mënta fexé sa askan bo wañé location ñom suñu wañé location mënuñoo fexé ba askan wi yëpp maanaam bailleurs yi respecté charte yooyu suñu wàccee suñu wañé prix Macky Sall fi la déclarer na wàññi ne prix yi demal ci boutique prix da gëna gën yow koku nan la mëna défé enquête nan ay rebelle ak ay yow yow yow yow même bo wañé prix manam décision boko jëlé pour am jumtu kay yu tax ñep ñëpp sàmmonteeg décision yoy sax problème la ci yow nga bëgg ñoo gëmloo naan da ngay xeex ak ay ay rebelle ak ay ay ay ay ay yaxaw ma nu mu gis nga Fallou. Sénégalais ici ils sont conscients ñom ñep dañu wara a génn France sama la lañuy xeex. France liñuy ñuy xeex Fallou mooy que retraité yi problème retraite la maanaam dafa am luñ ñu bëgg a ci doxalinu niñ ñu daan traité retraité yi cette population bi yëpp jóg indi ñëw parce que ñooñu dañoo goré moo tax ma naan àjjana ñu ngi naan ñun ñun jullit yi ñooy dugg àjjana quoi ku gëmul yonent bi doo dugg àjjana ñun de bu dee ñooy jàng alxuraan tubaab yi ñoo koy pratiquer xaw ma nag yaa ngi may dégg am déet. boo xoolee technologie li ci avancé lii yëpp mu ngi ci biir alxuraan ñun jullit xamal lañ ci am. Euh, buñ paree lekk ay laax ñu jox ñu benn cinquante mille ñu séddoo ko suñu biir dem nañ wàcce nañ kaamil bi. wala boog dem nañ concours alxuraan ñoo jël coupe du monde bi waaye li alxuraan di doxal ñun duñ ci doxal ah. dara dara dara parce que pour man pour man réew mu normal mm. Mm. du mel ni réew mu mel ni Sénégal mm. nga xam ne fàllu dañ koy noot konaa naan man sama yoon nekkul ci noot bi ñu noot fàllu loolu jullit du ko def tubaab yi bu leen neexoon na ñun retraité guñu te bu ñu bàyyi woon retraité kese mënuñoo taal mënuñoo taal France te lay leen combat bi bu doon retraité yi kese lañ ko bàyyal ne seen combat la comme ni ñuy def Ousmane Sonko ñu koy bundu di ko noot yenn opposants yi ne ko sa combat la ñun suñu yoon nekk si ñun ay républicain lañ ñi naan troisième voie naa feq ñi naan ñun du ñu jiital suñu jiital ay njabootam. ñu leer na maanaam injustice. on est de loolu du démocratie loolu c' est la lâcheté. li bokkum wax mu ne. waaw loolu loo euh, loolu c' est euh, loolu loolu du démocratie fàllu. kon xamuñu lan définition de définition démocratie. démocratie euh, non non non non non de la lâcheté. la France ne sont ne sont pas démocrates la population de la France ne sont pas démocrates ils sont des démocrates. mais démocratie sax moi non, Nous duñ d'accord euh, euh, cause. mais non mais nous eh, diversité. d'accord fàllu hmm. bu dee démocratie mooy nga gis dëgg ne man gëw ma dëgg fenn laa gëm déedéet loolu démocratie loolu c'est la lâcheté. donc position ñoom Thierno Bocoum. de euh, euh, démocratie Ousmane Sonko naan dafa war a génne ay njabootam loolu rafetlu woo ko. c'est de la lâcheté dégg nga man dee naa la c'est de la lâcheté Macky Sall muy xeex est-ce que nañ ko indi say Amadou Sall da ngaa xamoon Amadou Sall da ngaa xamoon doomam yi loolu waxuñ maanaam débat de bas étage la Ousmane Sonko jëmmi boppam. Hmm. la tayle. xam nga ku tey la sa jëmm bopp fa sa njaboot waxatuñ ko Ousmane Sonko da nga xam lu njabootam di dund Thierno bokam non gis nga man. mënu ma protégé quand même. gis nga dama bëgg nga déglu ma hmm? Sonko il est protégé de bout à bout. comme na. il est protégé mais ay garde euh, rapproché am. Sonko mii ñu tank sañu ko laal. Sonko mii ñu tànk barki demb ñu naan dañ ko poisoner wala poisoner nga naan il est protégé il est protégé par Dieu il est protégé par Dieu. waaw yaa ngi jënd Bocoum. waaw dama ne la. Hmm. c'est de la lâcheté ce qui est en train de se passer dans ce pays. parce que France tey bu doon ñoom seen seen seen.